président de la République son excellence Macky de son de l'eau euh, en l'occurrence le sëñ Serigne Mame Kane c'est le directeur de l'Office des forages ruraux du population du Sénégal d'ici de la diaspora ces euh, populations de la région de Fatick département de Foundiougne de Niombato et particulièrement de Karang l'honneur m'est choix de m'adresser à vous en ces circonstances particulières puisqu'il y a une situation exceptionnelle qui s'est produite au niveau de la collectivité locale de Karang à ce titre je voudrais dans un premier temps adresser mes différentes salutations à l'autorité suprême de ce pays, son Excellence M. Macky Sall. Rappelez que tout ce qui se fait dans ce pays présentement s'inscrit en droite ligne de ce que l'on appelle le plan Sénégal émergent, dont la philosophie est un Sénégal émergent à l'horizon avec une société solidaire dans un état de droit. Par conséquent, en ma qualité de conseil municipal et de citoyen tout en plein exercice des fonctions qui nous sont dévolues par les textes découlant de l'acte 3 de la décentralisation, une autorité appelée gérante au niveau de la collectivité locale de, de Caron, les forages de Caron, répondant au nom de M. Wad, a décidé d'ester en justice contre ma personne. Je rappelle ceci à l'opinion nationale et internationale.

les ressources naturelles du pays appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie, l'exploitation et la gestion de ces ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à assurer la croissance économique, mais aussi et surtout à promouvoir le bien-être des populations et également à assurer ce qu'on appelle le développement durable. En cette citation découlant de la dernière réforme constitutionnelle du Sénégal, vous comprendrez avec moi qu'il y a deux dispositions essentielles, la transparence dans l'exploitation et la gestion des ressources naturelles du pays, mais aussi et surtout le bien-être des populations. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement à Karl conseil municipal élu par des populations pour parler au nom de ces populations, plein exercice de ses fonctions a été mais également véritablement traîné devant ce qu'on appelle les tribunaux de notre pays, au motif qu'il aurait tenu des propos qui, du reste, sont assimilés comme étant Je me demande dans quel pays sommes-nous. Ce gérant, répondant du nom de M. Wad, oublie qu'il est entré euh, de faire ce qu'on appelle une délégation de service public. Délégation de service public, dit-on. Quand on parle de la délégation de service public, ça veut tout simplement dire ce qu'il occupe, ce qu'il gère, cela revient au public. Et c'est ce même public qui m'a désigné comme conseiller municipal. Dans notre pays, depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence M. Macky il a été promu ce qu'on appelle la transparence, mais aussi et surtout la reddition des comptes. que nous disposons, d'une manière véritablement en déphasage avec les textes. Par conséquent, c'est dans ce contexte précisément que mes amis, les populations de Caran, particulièrement les structures ici présentes, je les cite, il s'agit de la structure Samusigno Momel, du collectif des usagers des forages de Caran, de mon ami et frère promotionnaire Mamoudou Lamine mais aussi de toute cette population que vous voyez devant vous. Nous avons constaté

que le ministre a réagi en appelant euh, le directeur général de l'OFOR, en l'occurrence M. Seyni Ndao, qui, après avoir euh, eu écho de ce qui se passe à Taran, est entré en contact avec le gérant pour rétablir l'ordre normal des choses dans l'approvisionnement correct. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. En tant que conseil municipal, on était censé véritablement porter en bandoulière les préoccupations de nos populations. Donc, euh, à la ligne d'arrivée, quest se passe Un instant justice contre ma personne, au motif que j'ai retenu des propos diffamatoires. Je tiens à le dire ici. Ce qu'on avait dit lors de notre point de presse, ce qu'on a écrit sur notre page Facebook, nous défendrons énergiquement en tenant compte des droits qui nous sont dévolus par la Constitution du Sénégal, mais aussi et surtout par la Déclaration universelle des droits de l'homme. M. Wade, c'est un gérant à qui nous vaut beaucoup de respect, mais qui malencontreusement ne veut pas nous rendre la pareille. nous a invités à un combat et nous essaierons de faire autant que faire se peut relever le défi qu'il nous a adressé. je pense que ce combat-là, comme vient de le dire, véritablement, une bonne partie en tout cas de mes compagnons, ce combat-là n'est pas le combat de votre frère, de votre ami, de votre fils, de votre neveu, docteur Abdou Diallo, mais c'est le combat de la population. C'est en les populations de Caran, y compris les corps de l'État ici représentés, que ce soit la douane, la police, la gendarmerie, les agents des eaux et forêts, le manque d'eau à tous Maintenant, un honnête citoyen se lève pour dénoncer cela. On le traite d'être un diffamateur. Dès, à présent, on essaie même de porter à l'honorabilité de cet individu. Et pour votre information, je suis enseignant-chercheur. Euh, toute ma vie durant, je me suis attelé à avoir une très bonne formation afin de pouvoir mettre mon talent au service de ma patrie. ce n'est pas au moment où j'essaie véritablement de venir en appoint à des populations en difficulté qu'une tierce personne se permet véritablement de me détourner, en tout cas de la voie que j'aurais prise d'entrée de jeu. permettre moom moo wax wolof ci li xew. dañu nekk ci réew mi nga xamante ne dañu naan àq ak yelleef doomu aadama dafay mu am ay kayit yoo xam ne dañu ko xaatim kayit yooyu ñu xaatim nag Sénégal dafa am li ñuy tuddee déclaration universelle des droits de l'homme boo xamante ne xeex bu métti moo amoon ci réew muñ naan France di ñu génnee ci xeex boobu noonu ña fa dëkkoon di xeex ak yelleef doomu aadama ñu génnee benn kayit bu ñu tuddee déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen bu bu déclaration boobu boo leen ubbee constitution bu Sénégal ci préambule bi da ngeen ko fa fekk te lépp loo xam ne mu ngi ci préambule constitution bi dafay def acte de constitution ça fait partie de la constitution ñu wëlbateeku ci loolu Sénégal en 2016 ñu réformer li nga xamante ne mooy suñu loi constitutionnelle la loi de 2001 ba ñu ko réformer ñu am une nouvelle loi la loi numéro 2016 10 du 5 avril 2016 loi boobu moom moo ne lépp loo xamante ne koom la muy jóge ci suuf si askan bi boo ko moom te koom boobu di jóge ci suuf bi ñu koy jëmale ci askan bi war nañ fexe ba askan bi gis ci boppam war nañ fexe tamit ba mu indi naataange ci biir réew mi ñu gis ne président de la république bi mu faloo moom dafa am benn këyit boo xam ne daf ko tëgg këyit bi mu tuddee ko PSE plan Sénégal émergent ci këyit boobu noonu mu am ci gis-gis boo xamante ne daf ko tuddee philosophie du plan Sénégal émergent ci philosophie boobu noonu moom dafa wax ne fii ak 2035 dañu bëgg Sénégal mu nekk réew mu naat ginnaaw bi mu nekkee réew mu naat ba pare mu am solidarité maanaam nit yi di dimbalante ginnaaw loolu noonu tamit mu ne mu nekk état du droit mu nekk réew moo xam ne àq ak yelleef doomu aadama dañu koy respecté ñun ñu nekk ay ndaw yoo xamante ne suñu askan moo ñu fal demuñ ci fi eh, nga xamante ne mooy conseil municipal comme ni ko Macky Sall di waxee politicien warta muuma dañ fa nekk pour askan bi la nga xamante ne moom la ñuy jooy ñu jooyal leen ko fañ ko war a jooyee la nga xam ne moom la ñuy ñaxtu ci kër yi ci mbedd yi ak ci grand place bu ñu yeggee foofu ñu ñaxtul leen ko xaaral nag jafe-jafe bi nga xamante ne am nañ ko muy jafe-jafe ndox may fàttali nit yi mu ngi tàmbali 2014 2015 ñu nekk ci xeex bi 2016 ñu nekk ci xeex bi ba Abdou Latif Coulibaly ñëw ci benn ndaje jamono au conseil des collectivités territoriales di sàkku fi ñu ñuy teew fii pour ñu dimbale ko maanaam ay candidat jal jàll keroog maire Abdoulaye Ndiaye mu ngi teew maire adjoint Gomis mu ngi teew muy monsieur Mbodj kilifa yu bëri ci dëkk bi ñu ngi teew bi ñu teewee ñun ñoo demandé man maa nekkoon porte parole opposition bi à l'époque boobu delluwuma di liggéey ak Macky Sall ñun nu ñu njëkkoon a formuler mooy nañu monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly dimbale ñu am forage bu jàpp si ba yàlla def ñu am deuxième forage bi ci xeex bu métti ñu defoon marche également demande d' autorisation yi ñu ngi fi boobu bi ñuy xeex wàdd ñëwagu fi ñu xeex ba am suñu deuxième forage 2018 forage bi ubbeeguñu ko ba 2019 ñu commencé ubbi forage bi biñ ko ubbee am ñuy jot ndox am ñoo xam ne jotuñ ndox ñu dem ba ci biir forage bi am paan ñu génn di wax ci loolu am lu doy waar lu am kaaral da am sa facture 400 francs 400 ñu jël juróom-ñaari fan ñu ne la boo ko fayal si juróom-ñaari fan ñu coupé la indi la bon de coupure 3000 jamono feebar boo leen seetaanee àdduna yëpp ñu ne ndox mi il faut nit yi ñu koy jëfandikoo ba ñu waxee lan moo ci topp nee nañ kaddu ya ma yëkkati ak la ma war a wax bokkul ñu ne kaddu ya ma yëkkati man dama yàq der lan la yàq der te ma leen di seedeel fii ma se monsieur ma mosul tegante bët xaw ma ku ñuul la xaw ma ku xees la ay at ci ginnaaw maag moom bokkul dara monsieur Wade man bu ma ko gisee mënu ma leen wax kii mooy monsieur Wade koo xamoon koy sëq maa ngi toog sama kër maa ngi si sama liggéey bu ma waree défendre askan bi ma défendre askan bi monsieur Wade am bi mu lëkkaloo ak la mu ne may fàttali force de l'ordre yi teew ñu ñëwoon si sama point de presse bi jotoon naa ay menaces ma koy waxaat fii fukki question ak juróom benn lañ ma bindoon di ma menacé ci neuvième point bi la ma waxoon mooy est-ce que tu connais la puissance de frappe de tes adversaires yàlla moo yor doole je n'ai pas besoin de connaître la puissance de frappe de mes adversaires je pense bien que nous sommes dans un de droit et cet état de droit là va agir en mon et va parler en mon kon nag bu ñu demee ba tey ñu gis ne woo nañ ma ci justice génne ma ci groupe boo xamante ne eh, ci ay groupe yoo xam ne ci laa bokkoon di mën a combat bi damay sant yàlla di gërëm teew nañ tey ci bés bi bokk ak ñun combat bi ñu xam ne combat bi combat Abdou Diallo man maa gën a tuuti ci ñi nga xamante ne ni mbiru ndox mi laal na leen man maa gën a tuuti est-ce que yéen a jur yi nga xamante ne bi ndox amutee lañ doon dund est-ce que moom mu ngi koy xalaat fukki fan ak juróom forage bi panne mënuñ ko dépanne ñun juróom-ñaari fan bu suñu ndox bu nit yi rek mu coupé la te moom fukki fan juróom mënul jox nit ndox te kenn topp ko dara juróom-ñaari fan moom bu ñëwee bu la indilee facture aljuma yow nga war a xëy lënd tey ji bu motee juróom-ñaari fan bon de coupure nga fay fekk mbala ñu indi la ko facture yaa ngi fi loolu nekkul lu ñuy sos te mbir mi bi mu amee comme ni ñu ko waxee ñun dañ dem ba ci sous-préfet jóge ci sous-préfet ñu dem seeti ki nga xamante ne mooy kilifaam muy préfet ñu jóge foofu dem seeti ji gouverneur dem seeti ji waa direction de l'hydraulique bi ñu jógee foofu ñu it si toog ay jamono réaction amut après ñu bind benn recours en annulation déposé ko ci table mu ne dina def enquête ku def loolu naka nga mën a waxee ne dalay sosal dem na ci say kilifa ñi nga ànk mbiru ndox mi nga ne dalay sosal léegi nag man damay politique man damay politique ñama envoy lekk lettre di ma menacé dañuy politique te problème ndox bi bind nañ ko ci léegi nag li des ba des mooy problème bii man def ma ko problème mu politique problème mu ndox la nañ ko def problème mu ndox ba mu jeex tàkk li wolof njaay di naan maanaam yóbbante galgal jeexal lu bëri loolu moom moo xew te dafa am contrat boo xam ne signé nañ ko waa Kaarang contrat bi li ci nekk waa Kaarang bu ñu ko xamoon du ñu accepter contrat là parce que li mu def nii nag am na benn disposition boo xam ne ci contrat bi mu ngi fa man nag dëggal neex yàlla eh, am na ay erreur yu bëri yu ma constaté ci contrat boobu buñ ci tolloo dinañ ci wax la ma indi woon tey moo nekkoon waxtaan ak waa Sénégal yëgal président de la République yëgal le ministre de l'eau et de l'assainissement monsieur Serigne Mbaye Thiam yëgal le DG de l'OFOR que la situation qui sévit à Karang est une situation préoccupante et que les populations ont véritablement besoin de l'appoint du gouvernement parce que le président de la République au moment où muy théorise ce qu'on appelle l'accès universel à l'eau nous nous connaissons ce qu'on appelle une rupture dans l'approvisionnement en eau accès universel bu ko defee li yi dëkk ji nag ci commune bu Toubacouta toog nañ lu ëpp weer ñoom tamit ñu am problème mu ndox département bu Foundiougne problème mu ndox dafay nekk te lii dafa law ci Sénégal gis nañ ay booru Cap Skirring si jamono weeru koor bi niñ fa sonne woon ba ay lakk pën am ci ba ay jàmmaarloo am ci kon nag askan bi li ñu bëgg nañu xam ne forage yi se Wade moomu ko président comité de pilotage bi Gomis moomu ko askan bi la Macky Sall may forage u Kaar askan bi la Macky Sall may forage u Kaarang kon askan bi la Macky Sall may forage u Kaarang dañu nekk ci jamono boo xamante ne dañu koy tuddeel une gestion participative et inclusive maanaam nit yi la nga xamante ne ñoo ko moom danga leen ci boole ñu gis ci seen bopp bu ñu amee lu leen jaaxle ñoom ñu laaj la nga déglu leen nga fekk si leen ci la ñu bëgg mais mënoo ñëw ci dëkk jàmbur ñu dënk la seen alal yow nga wëlbateku nga ne kenn du wax ku wax ku nekk dal la ak moom yoon di gën a doy waar naka ngeen di jëlee ku mel ni ancien maire biir fukki bëgg na yóbbu ñaari nit ci yoon kii la njëkk a jox lu ñu tuddee sommation interpellative man nag xeeb nañ sommation interpellative dañ ne ma directement ñu dem taxaw tribunal comme na ma ko waxee bu ci yàlla ànde incha allah maa ngi sant waa kaaram di leen gërëm di leen naan gis naa seen taxawaay di sant di gërëm waa ñoom mbaatu di leen naan gis naa seen taxawaay di sant di gërëm waa département Foundiougne di leen naan gis naa seen taxawaay di sant di gërëm waa Sénégal ak waa diaspora parce que fu nekk nit yi ñu ngi ma koy li ma laaj docteur lu xew wax naa leen ne nag jàmm kese la parce que nag ah kuy bëre mooy daanu waaye kuy bëre tam mooy daanu li ñuy ñaan yàlla nag mooy ci li ñu jëm yàlla maa ñu ci ndam te am nañ ci yaakaar bu fekkente ne maanaam la ñuy jooytu li président de la république bëgg ministre bi bëgg ko DG Opor bëgg ko gisuma ñoom fu ñuy jaar ba ñu am ci ndam gisuma bu fekkee ne Macky li mu bëgg loolu moom moo war a am nit yi am ndox ministre bi soxla ko DG bi soxla ko te nañu fàttali ne ci gestion transitoire lañu ne réforme bi pareegul dañu tàmbali une gestion transitoire lañu wax léegi nag réforme boo xamante ne pareegul nga ciy jël di yóbbu ay nit yoon réforme boobu est-ce que baax na ñi bëgg a yàq réforme boobu xam nañ leen kon nag man li ma amoon lu pour wax tey mooy euh, lii di massawu nag képp koo xamante ne yaa ngi yeewu Sénégal di dund jafe-jafe ndox bi di naan président de la République ak le futur ministre de la situation la gestion euh, ak les préoccupations des populations par rapport à l'eau dafa nekk loo xam ne war nañ ci taxaw fondamentalement parce que ñàkk ndox dafa métti loolu moo nekk Kaarang coow li nag dafa tàmbali fii rek ci biir Kaarang waaye ñoom baata problème bi boo leen moytu dina fi law parce que entreprise bi am na ñeneen ñu muy lëkkal loolu di liggéey il faut ñu wax ko te nag euh, man bu ñu ci tolloo la ma war a wax dinaa ko wax kon maa ngi daanelee fii di leen sant di leen gërëm di leen naan le Sénégal de tous le Sénégal pour tous la Sénégal solidaire l' de droit bi nga xam ne président de la république mu ngi koy couronné loolu la ñuy woote fii ci Kaarang di woote transparence ci Kaarang di woote reddition des comptes ci Kaarang di woote ñu respecté la nga xamante ne mooy le contrôle citoyen ci Kaarang ci lii la ñu ma bëgg a yóbbee ci yoon dinaa wuy ji nag sama justice réew parce que am naa ci ñoom confiance képp koo xamante ne nag moom yaakaar na ne dana def li muy def ba pare dem bëre ji am ci la mu yaakaar nañu dem ba fu mbax mi doonee benn asalaamaaleykum mbokk yi maa leen de sant di leen gërëm di rafetlu seen teewaay